monsieur le ministre Farba Senghor ñu ngi lay nuyu. oui maa ngi lay fay. yow yaa jiite euh, parti bi di uh, les libéraux républicains mbooloo askan wi alors ci euh, benn téere bu mu génnee jamono yële tuddee ko protocole de l'Élysée confidence d'un ancien ministre du pétrole Thierno Alassane Sall wax na ci law ci yow ci lu yaatu euh, bi nga nekkee ministre des transports aériens maanaam ku ñu denk dem geek dikk gi ci jaww gi alors yow bi nga déggee déjà livre beeg li nu ci wax ak bi nga ko liiree ban yëg-yëg nga am. am ak lan a nekkoon sa réaction. waaw man dama jàpp rek ne Thierno Alassane Sall eh, xolam dafa dàng lool mu bëgg a fayantoo ak Farba Senghor bi nga xam ne moo nekkoon ministre am transport aérien dàq dàq ko ci dàq boo xam ne président Abdoulaye Wade si boppam moom moo ko santoon ne ko dàq ko ndax kii kat mënul liggéeyal xamul liñ ko sant ba pare dafay ànd ak ñi nga xam ne. ñoom la ñu seqal mbir yi mu doon ASECNA muy jàppale directeur bi te xamul ne man Abdoulaye Wade man maa ko nomelu comme man maa ko nomelu li président bëgg moom la war a def li réew mi bëgg ndax man la réew mi fal ne maay président de la république donc su ma nee bii mooy sunu position da ko war a topp su ko mënta topp dafa war a bàyyi waaye dàqal ma ko man ci laa ko dàqe woon ndax li xewoon mooy ci mbirum ASECNA mi man sax avant may nekk ministre en 2006 bi nga xamee ne ministre Ousmane Masseck Ndiaye dafa dem Bamako boobu président de la république maître Abdoulaye Wade moo jox instruction pré premier ministre Macky Sall ne ko waxal Ousmane Masseck Ndiaye ne ko su demee na fexe ba wax ne ASECNA nañu soppali doxin ndaxte ñun munu dañoo ñu xool koom-koom bi jógee ci sunu jaww yi ñun réew yi ko bokk ak koom-koom bi jógee ci sunu aéroport yi ñu fexe ba kenn ku nekk la ci ruusee ñu jox la ci sa àq ndax booba président Abdoulaye dafa seetlu woon ne fukki réew ak juróom-ñett yi nga xam ne ñoo bokk ASECNA booba juróom-ñeenti réew yi don euh, réewum France ak réewu Côte d'Ivoire ñoom seen aéroport ñoo koy gérer kenn ku nekk seen bopp seen xaalis dañ koy dugal ki seen trésor France day gérer Charles de Gaulle di gérer Orly ñun nag Sénégal ñun ñoo bokk ci juróom-ñeenti réew yi ci fukk ak juróom-ñett yi nga xam ne ñoom seen aéroport xaalis bi dañ koy jël di ko dugal ci gafaka bu Asegna ndax ñun suñu aéroport bi fanweeri milliards ak ñaar moo loon am Mbaye Ndiaye mënutoon a jënd sax benn bic bi jite woon ANS te amul euh, autorisation bu Asegna ci loolu la ñu waxoon man bu moo ñëwee ah loolu maa ngi ñëw euh, ci 2007. maa ngi ñëw juillet maa ngi ñëw le 19 juin 2007 lañ ma nommé réunion booba muy wax moom réunion bi xam ne moo am coow la fekkeewul ko ndax réunion bo mu nga am un an plus tard mu ngi amoon le vingt juillet 2000 2008 la amoon ca Malabo ca réunion booba la ñi nga xam ne ñoo ko seqoon ak Sénégal mer ministre yi ñu fa defee réunion daal di mer daal di ne ñoom kat na leen Sénégal delloo aéroport bi nga xam ne jëloon nañ ko. te ñu na leen delloo si xaalis bi nga xam ne Sénégal ci boppam xaalis boobu doon na ko encaissé ci aéroport bi depuis le 10 parce que 10 ci la jël ci ndigalug Ablaye Wade man nangu aéroportu Sénégal xaalis bu ñu koy jël di ko yóbbu trésor moom alas Thierno Alassane nag dàq boobu ñu ma ko dàqoon te président wax ne naa ko dàq loolu moo ko métti woon metti ko lool ba fu mu dem parce que Thierno Alassane même bi bi ma ñëwee sax damaa fekkoon situation ba foofu. waa aéroport yi gars yi bëri ànd ñu war moom parce que dañ ne liggéey bi mënu ko woon ndax moom ingénieur la woon de maintenance mooy ñiy def ay réparation ñi réparé moom la woon amoon na ñaar nit ñoo xam ne moon nañ ko muy Mamadou Diop ñoo ko doon profil pop ak keneen koo xam ne dañ ko doon wax Ablaye Diouf d'ailleurs bu ma ko dàqee le 4 janvier 2008 Ablaye Diouf moomu moom laa ko ko remplacé donc si Thierno Alassane soo ko seetee alors li ma ko dàqee woon la ko président Macky Sall dàqee. Hmm. ndax dégg ngeen ci affaire pétrole moom président Macky Sall dàq ko tamit jar na leeral. président moo ko dàq Ablaye Wade waxoon na ko nee na ko yow dañ laa nommé man maay président daal man la Sénégalais yi fal yow ministre bi man maa ko man maa ko nommé par décret yow moom ñoom moom moo lay autorisé pour nga nekk foofu su fekkee ne yow li may wax li Sénégal bëgg bëggoo ànd ak moom da ngay ànd ak ñeneen ñoo xam ne. Euh, contre contre contre intérêt Sénégal la yow su boobaa da war a démissionné comme démissionné woon ak dàq naa la ci lañ ko dàqee xam nga moom hmm. poosam ak gafakaam ñu bëri yaakaar nañ ne moom lay dàq parce que mënul président Macky Sall eh, am ak premier ministre am ñu ne lii mooy position Sénégal contrat bii moom la ñuy signé tubaab bii dañuy àndal mu ne bàyyil sa tubaab yow nga ñëw nga nga jox ko sama tubaab moom tubaabam bi mu ko bëgg a jox loolu kay moom xanaa kon moom ah moom gafakaam la bëgg a tooyal mën nañ yaakaar ne gafakaam la bëgg a tooyal parce que mënoo ne bàyyil tubaab bi jox ko tubaab bi su fekkoon ne dafa noonu nañ ko jox Sénégalais baaba Baba mi ngi ci pétrole bi président nañ jox affaire bi Baba Diaw wala mu ne nañ ko jox ñi nekk euh, donc itok wala mun nañ ko jox ñi nekk Orix nañ ko jox ay sénégalais mun nañ seeti béy di aañ mu ñu yore CNP wala nañ seeti ñi nga xam ne ñoo nekk kenes nekk ay privé ñu jox leen ko su boobaa dañuy yaakaar ne kii patriote la mais du patriote ñëpp yi xam nañ ne. poosam moom moo ko taxoon ko taw ñëpp loolu yaakaar boobu la ñu am loolu ñu ko dàqee woon moom la ko li ko Macky dàqee moom la ko président Abdoulaye Wade dàqee woon man mii man maa ca daq ba loolu nag dama meree hmm. mais man dama ne idiot dof dof dof dof dof dof rombul yow ñu nomee la nga yaakaar ne yow gis sa bopp man ngaa teggi la président wax nga teggi la premier ministre wax yow ñoom ñëpp ñu bàyyi la ñu wax yow topp la loolu dof la parce que moom dañ ko nommé nit day nekk nit donc et puis soo nekkee ci nguur nga am ay ay ay ay ay secret secret li xew ci biir yëpp kenn mënu ko wax comme njaboot yi comme kër yi la li xew ci biir kër yi hmm. yëpp kenn waru koo wax am na ay président soo jàppoon président Senghor président Pompidou président Charles de Gaulle de Gaulle wala ñi àndoon ak Abdou Diouf ak ñi àndoon ak Tanor ba léegi ak ñi àndoon lu ñu xam yépp suñ ko waxoon réew mi day tas am na yoo xam ne kenn du ko wax muy ci njaboot gi muy ca état ba muy fépp soo yaakaaree nag yow wax ak premier ministre sax jël SMS yi génn ko di ko wone naan lii la ma wax man lii laa ko wax mais loolu ak ndof la loolu ñàkk xam ñàkk xam sa liggéey la ñàkk xam sa responsabilité la. d'accord léegi yow sax nit ñi di yow li la soxal ci livre bi dafa am loo ci nar a def euh, ci li mu wax ci yow wala dangay bàyyi noonu mu jàll. mais du def dara ab dof la parce que xam nañ ne ñëpp la ku nekk lay ku nekk la ci ku nekk la hmm. ku nekk lay wax te wax ji amul solo am wax ji amul solo wax ji taxul wax ji taxul fenn hmm. day waxantu livre bi dañ ne la xam nga nawe boobu ñuy togg parce que livre bi soo koy liir amul bopp amul genn da ngay dawee ci kaw daanu ci suuf jógee ci kàmb dem si montagne kooku jar tontu sax. sénégal yi si boppam ñu bëri sib nañ liir bi sax man duñ ko liir. Hmm. man sax su doon li ngeen ma doon wax yàlla xam na ne man du ma ko liir parce que liir bi ñu ko liir yëpp nee nañ liir bi livre bi moom neexut a liir. d' accord donc je crois kooku moom jar a tontu. d' accord moom libre bi moom juge na boppam. léegi ñu ñëw ci dialogue politique bi am na ñaari ponk yoo xam ni opposition beeg pouvoir bi ci la ñu wéy di wute muy euh, nekk euh, président nekk chef de parti waaye itam lii di statut chef de l' opposition ñaari ponk yooyu lu ci sa gis-gis ak itam ndax yaakaar nga ni déggoo mën na caa am ci cëppaandaw li. <laughs> xam nga déggoo pour mu jafe déggoo pour mu am mën na jafe. Hmm. mais man jàpp naa ne dialogue bi lu am importance la ndaxte Macky Sall président Macky Sall ba mu gañee mënoon na dem gouverner moom donc opposition bi nekk di opposé parce que loolu la constitution bi Sénégal wax kon nag ñun Sénégal uti dañoo réew yu bëri su président bi ñëwee ne maa gañee waaye kaay rek ju waxtaan loolu nit ñëpp dañu war a dem kenn ku nekk nga ñëw wax sa soxla su ko defee am problème yu bëri yoo xam ne danañ ko wàññi noonu la réew di réew di développé li nga xam nag moo jëm ci euh, li ñu jëm ci nga nekk président jiite sa parti la Abdou nee na moom chaise bi mu toog du moom mooy jël si di ko dagg di daanu branche bi mu toog du ko jël si mukk di ko daane loolu moo am solo parce que mënoo nekk président am parti gars yi ànd ak yow ñu fal la ba nga nekk président nga wañee ko ne dinaa sama ndomba tànk ci président bi yéen dem na leen seen bopp su ko defee d' abord daañ ko yàqal parce que kenn ku nekk da ngay bëgg eh, ah, jaar sa yoonu bopp ndax dootu ci am benn pois président tey nii président Macky Sall su fekkoon ne tey ji nekkul tey en président de parti kon ñun naka lañ doon wooyee ñun ya ànd ak moom di waxtaan ak ñun wala moom naka lay mën a di wooyee waa opposition bi fan lay teg kon mu woo ay Sonko ki ay woo ay Idrissa Seck ak woo ñeneen fu koy teg su buggee waxtaan loo xam ne affaire politique la ci affaire parti bi da naan yow bayil politique te nga toog nga gouverner ngay wax ñu affaire économique affaire ak sociale donc loolu jàpp naa ne président bi dafa war a nekk président dafa war a jiite man sama fi nekkoon tam man noonu laay def te loolu moom mooy yoon. Hmm. beneen bi statut de l'opposition ak chef de l'opposition chef de l'opposition moom Sénégal yi opposition bépp ko yàgg a sàkku depuis ca président Ablaye Wade ba léegi dañ koy sàkku yàgg nañ ci waxtaan président sax wooroon na ci Tanor Tanor nee na ko man de dama yaakaar ne ki nga xam ne moo ëpp doole assemblée moo ko war a jiite ñu woo Moustapha Niass Moustapha Niass ne man dama yaakaar ne képp war a jiite loolu moo taxoon joxuñu ko kenn ba bi nga xamee ne ñun suñ position moom ñun Abdoulaye Wade ak PDS moo doon ki nga xam ne moom moo moom moo jàkkaarloo ak président bi te perte moo ko war a nekk parce que moo doon taaw Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade moom rek moo fi jàkkaarloo ak di jël deuxième kon Abdoulaye Wade moo ko waroon a nekk ci loolu la woon hmm. léegi nag li nga xam ne moom moo li nga xam ne moo am solo mooy nit ñi dañu war a am dañu war a am xel yaati bi yaante biir parce que gars yi dañu añaanante dañuy añaanante ku nekk da ngay xëccu nan nañ ne am solution solution mais kenn bu ko nekk mm. ñaari façon lañ ko mën a joxee nañu seet ñun président présidentiel lañ nekk président purement présidentiel léegi sax assemblée nationale bi mënatut a mënatut a censurer président bi si boppam mënatut a dissoudre assemblée assemblée nationale mënatul sax woo premier ministre wala ministre nekko ko ñëwal nga def déclaration général donc assemblée bi amatul doole régime bi yor régime présidentiel la donc suñuy wut nattangoowu président de la République dañ koy wutee régime présidentiel boobu suñ koy wut ki mu war a doon mooy ki nga xam ne moo jëlee deux ci élection présidentielle man yaakaar naa ne Idrissa Seck moo jël deux moo ko war a nekk Idrissa Seck nekkoon na fi deux depuis deux mille sept mu jël deuxième parce que Idrissa Seck c'est incontestable ka ñi fi nekk xam nañ ne moom moo leen jiitu bon léegi nag su dee assemblée nationale mën nañ benn chef benn le ki nga xam ne moo jiite groupe parlementaire bi gën a foor bokk ci opposition bi mën nañ ko jox bureau wutal ko bureau mën nañ ko wutal budget mën nañ ko wutal oto mën nañ ko jox doole pour moom lu mu bugg a doxi mën na ko doxi fu mu bugg dem mën na fa dem ñu jox ko gëddaam mais li nga xam ne mooy kan mooy chef de l' opposition dañ ko war a jox ci jël deuxième hmm. mais soo ko waxee nag fii nag ay di buri sarax ñëpp xam nañu ne ñu bëri mënuñu koo nekk yéen tam journaliste da nga war a dimbale Sénégalais yi da xam ngeen ne moo seen hmm. non si leen laajee ne leen ñan a oppose ay fukki nit yow leer na la ne mënta nekk mënta génn deuxième ki jël deuxième ci Macky Idrissa la man soo doon jël assemblée nationale ki jël deuxième mënta génn groupe PDS waaw te mooy mooy mooy fi PDS nekk hmm. te ñooñu xam ngeen ne assemblée fi mu toll amul benn personnalité politique boo xam ne mën nga faa nekk nga ne yaay jiite opposition bi amul xam nañ ko amul eh, ñoom Idrissa Seck ñoom Khalifa Seck bokkuñu eh, Karim Wade ñoom bokkuñu Ablaye Wade bañ gañee ca génn donc foofu kan nga fay jox ne ko yaay jiite opposition bi nañ wax di dëgg bu kooku nañ ko jox dara rek mu nekk chef ca biir assemblée nationale mais kuñ ko war a jox mooy Idrissa Seck mais nit ngi dañuy soxorante. d'accord yéen su ñu leen waxee jël fukki nit. leeral leen mbir mi fukki nit mënu koo nekk. d'accord moom ay Sonko soo jëlee ñoom Sonko soo jëlee eh, ñeneen ñi koo mën a jël mënut a nekk chef de l'opposition. Hmm, mais nag du presse bi mooy tamit critères euh, yi nga xam ne moom la ñu war a falee chef de l'opposition ñoom ñoo eh, war a waxtaan ci seen i biir euh, déggoo. non non non non non hmm. déggoo bi déggoo bi dafa am fu mu war a ay ci ay chiffre la war a wékku wala ci ay nombre de députés koo xam ne rawaloo assemblée nationale jëloo fa bokkoo ci deux premiers yi. mënoo see bokk. koo xam ne bokkoo ci euh, nekkoo nekkoo woon jëloo deuxième élection présidentielle mënoo cee nekk bokk. d'accord léegi ñu jeexal ak euh, troisième mandat bi euh, coow laa ngi ne kur ba tey ci réew mi ndax li xew gi Guinée xew Côte d'Ivoire ak feneen ak feneen yaakaar nga ne président Macky Sall am na droit wu nekkaat candidat ci élection bi ñu dëkkmal am déet. xam nga problème bi du am na droit wala amul droit problème mooy est-ce que wax ji jot na war nañ koo wax wala waruñu koo wax ñun ak Sénégal bokkuñu fu ñu toll. yooyu Sénégal ñun Sénégal ak Côte d'Ivoire ak Guinée bokkuñu fu ñu toll. Hmm. Côte d'Ivoire mandat ba jeex na ba pare ñu ngi dugg nañ ci affaire ñoo ngi su leen neexee ñu wax président bi war na présenté wu wala waru cee présenté wu. mais ñun ñu ngi door a génne élection présidentielle en deux mille deux mille deux mille dix neuf ñu ngi deux mille vingt donc benn at la président bi des na ñeenti at ngeen bëgg di waxtaan fii ay. président war na présenté war na présenté loolu yàpp sénégalais yi la loolu dañ ko war a mu dem fële su ko defee sénégalais yi ñu liggéey ñun dañoo war a liggéey dañu am retard dañoo am retard ci ci développement yi dañu war a tabax ay kër dañu war a tabax ay yoon dañu war a tabax ay mbedd dañu war a tabax ay ay ay forage dañu war a tabax ay dispensaire dañu war a tabax ay ay ay ay ay ay école lu bëri dañ ko war a liggéey ci réew mi loolu nag dañoo war ñun ñëpp ñu consacré wu ci liggéey boobu politique bi su waxtam jotee ñu ñu wax ko. gis nga président Abdoulaye Wade nga dugg ci gouvernement def entrisme su duggee baax bi des moins de un an mu ne pël daal di génne bokkatuma commencé waatee di ak président bi. Abdoulaye Wade dafa wax ne da ngaa war a dem nga seeti président bi na muy liggéeye pour que su ëllëgee soo koy xeex nga xam noo koy xeexee. Hmm. parce que loo xamul yow doo ci man a werante tem boo xamul jàngoo ko xamoo ko amoo ci benn xalaat nan nga ci débattre donc noonu la mel nag donc nit ñi. nañu dem kenn ku nekk ñuy consacré liy jëriñ Sénégal demee nag ba ma di six mois su boobaa ñu teg ko ñu waxtaan ndax président war na présenté wala war na jërëjëf wu. jërëjëf Farba Senghor amoon nañu mbégte dalal la ci matinalu tey bi fàttali ne nekkoon nga fi ministre ya yaa jiite itam parti bii di les libéraux républicains mbooloo askan wi ñu ngi lay gërëm. merci jërëjëf.